Fay laa tudd. ñu ñëw fii ci Pakala Mbaye gis ngeen nekk victime lakk-lakk bi. waaw nekk ci lakk-lakk yu doy sax yoo xamante ni maanaam kenn mënut a xayma maanaam nu mu nu mu mu nu mu demee nu parce que métti na méttiwaay boo xamante ne nii jéggi na dayoo lool doon loo xamante ni lu nu jaaxal la te yàqu-yàqu yu méttee métti am na fi ay négligence nag tamit même am na ci yu bëree bëri yoo xamante nii ñi fi jëkk te jëkk a jóg te ñëw dem nañ ba yegg ci fëgg sappoor sax pour ñu ñëw. mais dañu ci amoon jafé jafé ñuy woo ñenn ñu né ñom ndox amul dafa manqué yeen safari wolé way ñu né ñom seen auto dafa pan té doon na lo xamanté wax di yalla sétan nañ liko lak nak mom jaaxal non trop trop trop trop parce que man mi di wax ak yow lak la na ci ñaari place délé na ci fukki xar ak benn ca li fi dee ëpp na téméré xam mom waaw kan tay bu ñu déggee say cadeau manam sàppal ñewu ñu atam non ñewu ñu atam da danoo yéxa ñew lool sax na amna sax sama ben grand ki mom place bi ni dem na ba egg ci fëgg leen après ñoom ñu xaw a yàggal affaire bi yéex lool sax ci ñëw gi bi ñu ñëw daanaka booy seet xaaju pàkk bi lii lakk-lakk na ba pare waaw. léegi euh, te mënoo leen xam aussi lan moo lan moo causé lakk bi. waaw li ko taal nag moom ump na du lool parce que nag euh, mi ngi tàkkee ci côté mairie bi la jóge bi mu tàkkee ba jëm kaw la ñenn ñi nga xam ne ñoo ko fekkee parce que man fiir bi muy dagg fekkuma fi dal ci yenn place yi après bi mu dalee mu tàkk. gindal wa après. ah fil bi dafa dagg. waaw fil bi moom dafa dagg. fil courant bi fil courant ñi nag ñu ngi wax naa fil bee dagg taal ko yooyu mais ñenn ñi moom li ñuy wax moom dañ ne fil bi moom bi tàkk-tàkk li jógee ci la dal ci fil fil bi exploité dal dagg dal ci bant yi yeneen beneen côté bi tàkk. waaye kenn ah, gaañu si. waaw moom wax dëgg yàlla kenn gaañu lu ay mala yi nga xaay daal ñoo fi dee daal keneen gaañu léegi yow lan ngay wax nguur gi. ah nguur gi naa ñu jéem a jël seen i matuwaay carrément jàppale mais jàppale nunu moom bu patante jotee mom dañ ni sonal bañi niw doole sax dañuy te seen place di génn wala ñu ñew dila wax dala force da ngay fay waaw te bim amé ba légui ñom wax deug yalla da melni dañ ci am ak sétan parce que li ñuy woo ñu naan marine France baa ngi ñëw du ñew ñi fi mënu ñu ko fay waaw ñi fi nekkan mom dañuy dem bu diké sen dox ji amna ñaara do yo xay fi lan fii mbéd ñoko doon tous té loolu yaakar na man war na no jël ba sappoor saabu yu mel nii amatee bu ne leen alors rek ñu xam ne ndox am na fi gasoil am na fi ñu mën a taal jël seen i matuwaay dem. mais xam posé question mais ci mairie bi amul ñi xam ne dañoo bokk ci mairie bi ñu ñëw fii wala ñu jege nguur gi ñëw taxaw leen. wax dëgg yàlla gisuma fi kenn gisuma fi kenn ku dëkk ci mairie bi ñu ne kii ci mairie bi bu dul sappoor yi fi doon ñëw daal ak seen raakole ndaw yi ndaw yi ñu yor yi nga xamante ne nii même raakole yi boo ko doon samp ci takk takkal cin mënu koo fay amul doole loolu daal laa fi gisaat mais à part keneen ñëw fi nii pour dimbali nu moom gisaatu moom. mais est-ce que tamit euh, li tax état seetaan leen parce que ñu dégg ñu ne état dañ leen a joxoon dañ leen waxoon pour ngeen pour ngeen déménager fii nii ngeen bañ est loolu tam mënu nekk cause ñu seetaan leen mel noonu mais nag mënu ma jàpp ne ñoom la parce que man dañ ma yee guddi ma daw ñëw état bi am na lu mu fi soxla woon ca kaw la ba tabax seen bâtiment ba mu tiim ñu mm-hmm. ñu xëy xëy li am mun ñu wax ne ñoom la mun ñu wax ne ñoom parce que daal en tout cas daal am na daal am na jaaxal na nu xam ne lu ko tax waaw ah, sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal waaw jërëjëf sëñ bi jërëjëf ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm ci taxawaay bi ak teewaay yi ak ni ngeen ñëw tamit yéen tamit def seen dabar taxawanu tamit ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm mais en tout cas mbir mi doy na waar critique na ñaaw na